fi dajale woon tey mooy lancé benn entité wu mouvement bu le président Talla la sos mu tudd jàmm gën ci biir jàmm gën mu am pàcc bu mu jagleel jigéen ñi di pàcc bu ama am solo ñu ko doon lancé tey muy jigéen jàmm jigéen jàmm nag su ngeen ko déggee dafa nekk benn entité boo xam ne dafay saytu wante dafay suuxat jàmm ji te bëgg ko lawal tamit kon loolu la président Talla Sylla ne na ko jigéen ñi taxawee ndax xam nañu ne jàmm moom mooy mbokku jaboot rawatina jigéen ndax boo ne jaboot rek sa xel si jigéen lay dem loolu moo tax mu jël cër bu rëy bu am solo bi jagleel ko jigéen ñi ne balaa may lancé jàmm gën bi damay lancé jigéen jàmm bi di tàll suñu loxo jigéenu Sénégal jigéenu Afrique ak jigéenu àddina ñu ñëw ànd ak ñun liggéey ndax euh, jàmm jigéen jàmm du nekk ay wax rek jigéen jàmm ay jëf la parce que la paix c'est un comportement li nga bëgg sa morom defal la ko defal ko ko suñu jógee ci lancement bi dañuy def li ñuy wax doxu jàmm dinañu dem ci kilifa diine yi kilifa aada yi euh, poli kilifa politique yi ak ñëpp bu ñu jógee sa lool nag ñu ngi jëm si li ñuy oowee université de la paix mu nar a yaatu lool ñëpp nar ci bokk ñuy sant di gërëm monsieur le président Macky Sall di gërëm la première dame Marième Faye Sall waaye di gërëm jigéen ñi nga xamante ne ni jógee nañ ci quatorze régions du Sénégal jóge dans la jaspora ñëw pour fekkee lancement bi waaye di sant di gërëm monsieur le président Talla Sylla mi nga xam ne moo am initiative bu rafet bi ne jàmm gën laa woote ndax jàmm gën fii moo gën fa ñu jëm jàmm gën laa woote ndax loo am amoo jàmm da ko fay bàyyi wuti jàmm jàmm gën laa woote ndax Sénégal fi mu toll tey jàmm la soxla jàmm gën fii jàmm gën fa ñu jëm kon jàmm aussi bu nit paree pour imposer fitna ci Sénégal nañu pare pour imposer jàmm ci Sénégal loolu mooy dëgg politique politique Serigne Cheikh Ahmed si Sy Al Maktoum da daan wax ne bu ñu ko nàmpalee ci weenu caaxaan bu màggee sàcc waaw dafa ni politique bu ñu ko nàmpalee ci weenu caaxaan nee na bu màggee sàcc ku ne am na droit politique ku ne am na droit am xalaatu politique Sénégal yàgg nañoo def ay élection muy am ay candidats avant élection yi coow li da daan kur ñi naan code électoral ñi naan accès aux médias d'État ñi naan nangam nangam nangam mais fu muy mujj jàmm dara du fi xew pourquoi parce que saa yu naree dara naree xew Sénégal dafa may kilifa dañuy jóg taxaw daaw bi mbir yi bëggee yëngu daaw jeeg kilifa yi ñoo jóg taxaw ne na fi yem te dafa yem nag maintenant askan wi ci boppam comme bu dara dee yàqu ñoom ñooy yàqule ak parti bu ñu mën ci bokk ñoo war a taxaw ne fii ci senegal jàmm rekk fi am ngir lan ngir jàmm gën.